waaw buñ nuyoo bokk yëpp siyaare leen ci weeru tedd bi ndokkeel leen ci ni ko laaje ñu tontu ci kem kàttan waaye diggante sëriñ bi ak yonent moom kenn du ko mën ndax moom dafa waxal boppam ne aqsamtu billahi inni linnabi abadan xillun wa xibun wa ma abaahu yaabaahu nabiyina almuntaxa xayru lwara aradi fi kulli cheyin aw ma yaabaahu abaahu bañ ne ba giñ la def giñ ne yonent bi ab xaritama ab soppeem la te loolu lu ci ne daraja la xalilullahi ak xabibullahi lu ci ne daraje boppam la te xalil ak xabib bëgg yàlla bokkut ak yàlla bëgg la bëgg yonent bi it bokkut yonent bi bëgg la moom nag da bëgg mu bëgg moo tax ma ngi dégg mu naan àllama nii bi anni ni ahabu ilayhi min gayri wa man yuhabbu <laughs> sallallahu alayhi wasallam nee na ko yaa ma gënal ku dul kon nag kooku dégg ma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neexut a xam euh, li ñuy wax nag ñi tax ñu di ko wax mooy ñiñ bokkal pas ak ngëm nga xam ne luy wax ci sëñ bi xam nañ ko gëm nañ ko neex na leen te danañ ko mën a dékku ñeneen ñi nga xam ne ni yàlla def sëñ bi neexu leen taxuñ taxuñ ñuy wax buñ ko weddee amu ci benn jafe-jafe buñ ko gëmut seen bopp lañ koy def suñu yoon newu ci murid yiñ ñu bokkal pasu sëñ bi daal tax ñuy wax loolu nag soxlawuñ ci ndimbal soxlawuñ ci wéttal xam nañ ne sëñ moom tànn na ñi mu war a tànn tànn ñi mu war a àndal te ba muy tànn booba mooy ba sallallahu alayhi wa tànnee ba noppi alastu bi rabbikum xaalu bale bale ja sallallahu alayhi wa wax bam noppee da dafa daal di saseñ bi mu wax moom it tontu daal ne bale yént bi tànn aw xeetam ne ahmadu tànnal mu ne ko damay tànn ci sa biir xeet wi sama njaboot du ma tànnaat loolu mooy xayru xayraat ji kulli yit yi mojisatun ta axarat wa xayru xayraatin la daykat du xirat moo tax jërul propagande jërul campagne jërul son kum tànnoon ca boobee da nga ñëw kum tànnuti loo bëgg a bëgg ñëw doo ñëw kon duñ yedd ku ñëwut ki ñë ki ñëwit du sëriñ bi kon nag euh, ñu koy tàmbalee ci xaside gii nga xam ne daf koo def muy siira bu matale bu matale mooy li nit war a xam ci yónnent bi sallallahu alayhi wasallam tam am njëriñ amal nit ki njëriñ fi la tàmbalee la nga xam ne nag dafa weesu loolu te yow mii sax ku la ko waxoon ci sa baay ak sa yaay du la neex loolu sëñ bi yoonam niwu ci du tudd xam nga fu mu tàmbalee laylatu mawlidin nabi ndax la des du lu ñuy roy ndegam du ñuy roy bokk ci li ñu laxa laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li ñu roy lu yonente mooy fi mu tàmbalee gën a adduna ak fi mu mën a defee dara tàmbali jëf-jëfam yooyu la ñu roylu ak meloom yeeg jikko yi waaye la ko jiitu suñu yoon wuru caane kon nag tegg yi ni sëñ bi mayut sëñ bi muy netti la jiitu yonente bi ndegam lépp ma sell fi mu ñëwee jamono rek la tàmbalee guddi gi yonent bi saa sallam gane àdduna nee na moo dindi sikki sàkk ak werante mooy guddi gi ko dindi mooy gi dunni dindi it coona nee na it moo laabal bakkaar yëpp guddi googu mooy gi giinu jëm nee na it biha najaatu wal falaax ma sururi wan najaax biha rabaaxu wasalaax ma an difaayi na xami nee na texe ak mucc ci guddi googu lañ ko amee nee na mbégte it ci lañ ko amee nee na tonaw ak yéwénu mbir ci lañ ko amee nee na mucc ci am mbugal it ci lañ ko amee dana xawat xawaariqa badat an ruwaati sabatat ka misli naari nutfiat ma ammihay daqami wa ayni saawat allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati usirat kal adami bi وكانقضاض الشهب طردا لأهل الريب عن سمع أخبار النبي ورجه بندمه mu ne gudd googu dafa dafa ñëwaale ak ay kiimaan ay mojisaat yu mu wàccaale yoo xam ne bi muy wàcc rek moom la àndaaleel te nee na loolu téere yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci liñ wax andi nañ ko bind nañ ko an ruwaati sabatat benn bi mooy sawara wa daa tàkk foofu ñëpp daa gis muy tàkk te mës fay guddi gi gane adduna bi mais cëpp rek sawara daa fay ak aynu saawata nga xam ne dañ ko daa màggal fonk lool keroog la giim ndox ma amatut nee na itam nuurun azimun qad yara a qusuura xaysara man kaana fi ummi alxura makkata xayril xulumi mel ne fii bu doon tey jii fii la yonent bi saa sam gënee àdduna xëy na ay cinq heures mu war toll jamono yu lënd mi yonent bi ne cëpp rek ba tudd yàlla daa àndaale leer goo xam ne ndayam moo ko seere nee na bi mu wàccee rek leer gi mu àndal ña nekk ndar ña nekk Casamance ñëpp ngi gisanteeg seen bopp na nuurun azimun qad yara bii xusuura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayril xurumi daaru bëccëg iwaanu kisran sadaa fiha wa xablu rufia samkun lahu fartafa na wa saman mukarimi benn palais boo xam ne dañ ko tabaxoon ba daan ko misaal naan dafa dem ba jege asamaan loolu misaal la na mu saman mukarimi mooy lu kawe loo xam ne gisoo fa mu yem rek dañ la koy misaal ne dafa kawe kawe ba miir ba gudd gudd ba doo da ngay xool ba fa sa bët yem moo tax buñ la koy misaal dañ day mel ni lu jëm asamaan ñu ne miir boobu nag garanté ga ak rëy ga waaye bi yonent bi ne cëpp rek dafa baa dafa dafa yëngu dafa yëngu ba fett ba fett ba fett ba jaaxal nit ñi buur bi nga xam ne euh, moo toogoon sax ci lal bi lalam ba dafa yëngu yëngu ba far dam xatta sariirun kasara li ajli hawlin hitara min noori afdalil wara neen lal bi buur bi toogoon sax dafa ànd ak tawax bi di yëngu di yëngu bu mujj lal bi ne tàcc doj rot mu rot fi suuf moom te loolu li ko indi mooy min nóori afdalil wara kon nag mu ne mawliduhu muazamu mubarakun muxtaramu mooy yan xaatimu ala sabi taqaddumi nee na waxuñu sax di nattable dafa daga nag dañ koo soppat dana daa war nee na màggal guddi gi dafa war ndax de guddi guñu war maal guñ barkeel war googu mu war nag ñim gën a war mooy ñi jiite mbooloo yi ñoo war di ko woote ci anam gañ ko bëgge di yéene ni ci yónnent bi di leen ko jàngal ñu di ca jariñu di ca texee moo bi sunnati teg ko ci tànki sunna màggal ga nga koy màggal nag da koy teg ci tànki sunna boo bëggee mu am njariñ mooy bu góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo nañ beru fee góor ñi beru fee jigéen ñi beru fee ñu bañ a gise bañ a jaxasoo bañ faaxu lu génn yónnent bi ak yàlla ak alxuraan ak siira ak lu demee ne ñoom nga xam ne ci lay jóge ma ci wax daray àddina lu dul lu jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp teewlu ko jariñoo ko loolu mooy def ko ci sunna nee na taazimo bi sunnati nag buñ ko defee noonu te teg ko ci tànki sunna yaxuduna lil jannati dañuy wommat indi na àjjana bis diyaadul minnati li moxlisin maasimi ci la ñuy amee ay xéewalit fa man yaazim mawlida nabiyina babil huda falaa yuxaasabu xada faxtariman wa azimi nee na ku ko mor ormal màggal ko nin ko war a màggale defe ko noonu yi wax sart yi benn bañ cee des leen wóor nu boo liggéey duñ la laaj dara duñ la isaab duñ la réglé da ngay waaxu rek dem kon nag war maal ko màggal ko faxdari man wa azimi fa man yuazim mawlida xayl baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri waxami kooko màggale nii ma wax guddik salaan salaam mi gii da nga mel ne ku teewee badar ci lu wér ci benn werante ndax badar moomu nag nga xool mooy lan mooy ña nga xam ne bañ ci jógee yàlla dana leen lu leen neex defati leen dara dara du ngeen ti bàkkaar garanti boobu lañ am boo ko màggalee ni ko war a màggal nag am nga daraja jooju bu ëllëgee fa kullu man anfaqa fii mawlidihi almusharafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayr wala mu fahimi koo xam ne am nga alal ju lew joo xam ne fu lew nga ko jëlee te wane jubluwoo ci wane jubluwoo ci yàq ndax wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin moo tax mu ne maa leen ba xëy de sarafi fabal alal ji nag joxe ko ngir yàlla te bañ cee wanewu bañ cee njistal def ko ngir yàlla képp donte benn dërëm bi gën a tuuti la nee boo ko defee danga mel na ku teewee xunay niin te la muy métti métti xare unay niin boobu nga muñ ko teeween gi badar te jàppale yonent bi dimbale ko boo da nga da nga da nga dañ lay yëgal ca daal ne fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuasabu xadaa mi ngi koy mi ngi koy confirmé rek ku ko màggal nii ma wax doo tase mbugal ëllëg fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara maadiman mubashira bi sukrin aw laxami fa innahu qad dafira bima yudimu lbushara wala yulaaxi darara yowma ijtimaai lumami koo xam ne nag togg nga aw ñam wu am ndawal wala nga am naan goo xam ne am na suukar jàpp ci dundal guddi gi rek jox ko ña koy ña koy jàng ngir jëmmi yàlla képp tax danga ci am loo xam ne kawe na sa njort ci ay xéewal ta doo tase jenn jenn lor bis ba ñuy dajale xeet bi ëllëg mu yemal ko yàlla. way naa laa maa in xur yi mawlud xayil bachari fasun bil mutahari yakuf kaydil murham li iblis di bari bari pexe barsan bi ñuy jàng ak xasida yi sëñ bi nett li siira ñu fanaane koo jàng ndox mañ koy tefli ku ca naan yàlla dana la musal ci pexem iblis kon nag iyaa u mawlidil bachir yaxmil ayaala wa duyóor fii shifaun li sudóor li kulli aadin yéen tamit dundal guddi gi nag am na yeneen ngëneel mooy day dalay aar yow mi koy def aar say say say barab aar sa njaboot aar say bagage sax addukal beeg sàcc ak yàq kat du ci du loolu bokk na ci ngëneelam te day saafara raggi xol ak raggi yaram kon nag mu dikk ci ni mel qad kaana saa tawassuti fan qad jaali sututi walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami walam yakun mutahama walam yakun mukalsama bal faaxa kulla sama min mumtin li aadami kaana yatuudu kulla man maasaahu fi kulli zaman wa kaana waasi alatan yabxaku bi tabassumi ci gàttal daal nee na dafa diggu doomu njooliwut ba fu bu àndee ci mbooloo ñëpp di ko yoxamti ko gàttu tiit kenn ku ne di ko xool ci suuf te mbooloo mu àndal day mel ni moo leen sut te bind ba dafa jekk lenn ëppul morom lépp dafa yem doo xam sax ndax doomu aadama dana mel nii wala déet doo xam foo koy féetale ndax mel war a fet kum dendal rek moo lay ëpp daraja day mel ni moo la sut te kenn du la xoolati nee na ku yaatu woon dënn la dënn bu rëy la yoroon te nag bu yoree day muuñ jox xaqataay te nee na melo yu ko yàlla jox ten ten la boo xam ne diggante weex a xonq la demel lu clair lu lu hmm. ten la boo xam ne doone daa weex tàll ba mu ëpp ndax loolu am na ñu ñu mu defetut ñoom doon yi daa xonqaay xonqaay yenn naar yi waaye dañoo fab ci diggante bi jox ko jox ko melo woo xam ne moom rek ni mel nga xam ne day mel ne bu doon doomu aadama daal da nga naan lii daal dama dañ ko maquillage defaraat ko ba mel nii waaye nit mënta mel nii <laughs> te bu ñaq way génn day ànd ak lañ moom lu nit ñi gën a ñaq di wuti parfait moom nag lu mu gën a ñaq xetu miski di génn ci yaram muy xëy xam ku ne day bëgg a jege jëmm ji ndax xet gu neex te nee na bu muuñee nag day mel ne melax gu génn ci digg waxset set ni muy mel la ba ñuy mel wa daxkuhu yajlu zalaam ka surujin fi zulami day mel ne ab lam boo ne tay ci biiru lëndëm ni mu fay mel noonu ay reem noonu lay mel ci nit ñi nee na kalam wow mu dawwaru wow xamisul assaru wow bayinu asmaru muratilu takallumi ka annama azabi nee na jekk ba dee ayer nii nu bakkan gi daa rëy bi fii gudd so bokk na ci naar yi dañ ko daa taggee ñi ci gën a rafet ci ñoom jëkkut jëkk rek bakkan bi gàtt da gudd ba fii door du am bakkan nee na ka annama azal fii xadin moosib daa mel ne ndoxum wurus lañ def ci lexam ba ndoxu mbuurs moo cay xelmati boo koy gis <laughs> nee na nopp yu la yor mm. waaye wal wàccu maaxil xuma mi sekkal yàlla wu jekk waag kanam nga rafet gaag nopp eh? yu rëy yaag mat gaag yëpp nag mm-hmm. teewul kanam nga moom day fa njàqare nee na ku jàq ba egsi ci penc ma bañ la na xayma bii fi lu yonent bi ne wala tabax bi la ne li nga naan siiwa gis kanam gi rek bu nee tëll nga xool ko rek boo amoon njàqare cent 99 yi dem na ndax da xam ne sa aajo faju na bu na muñu sax sa aajo faju bu na muñu yoon ko kenn du fa àndaale soxla muy dellu bu dee laaj mu tontu la bu dee euh, ku soxla ñaan mu ñaanal la bu dee kuy laaj alal mu jox la koo tax mu ne wal wëccu maaxil xuma mi kooku nag wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan raara wal mislu qattu lam yura walam yura fi chiimi noonu yi ma wax ni ni ko yàlla bind nag moo tax dafa gën a mat ñëpp ci bind bi waaye yemu ci waaye da leen a gën a mat ñoom ñëpp ci jikko ji moo tax wal mislu xattalam yura yàlla mas sa bind ku mel ne moom wala nu yura fi chii mi te du amaat ci adduna kooku nag ahmaduna moom noonu yàlla baaxe muy sunub yonente ahmaduna rahmatuna wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mooy sunu yërmande xaamiduna bokk na ci aw turam xaamid day sant rek waaye niamatuna mooy yërmaande bi eh, xéewalu bindeef yëpp xam naa loolu la sëñ bi doon na ci moom ba tax nga dégg Cheikh sa Cheikh eh, Sidiya Baba di ko wax ne ko acheikhu ahmadu niamatun awlaaha haasi alxalaa'iqa kullaha mawlaaha nee na ko yow seet naa seet ba xam ne xéewalu jullit ñëpp nga doo kenn bàyyi ka ci des da koo doon ci sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne niamatuna mahmuduna na ay turam la bokk farxatuna muy mbigum yëpp wal joodu musri diyemi waaye tabam ga dafa gécceel ab taw mu junju melo wi gannaaw bu mu jógee ci mm, melo wi ne yàlla bind ta nga xam ne da koo jagoo te kenn fekk ko ci nga xam ne liñ naan ak jagle la exception la ci moom mësuñoo gis mbindeef mu bind mu mel noonu te doo gisaat mu indi yi nga xam ne yàlla daf ko koo jox ci ay mojisaat te yonent yi ko jiitu yëpp bu leen doon wàññal ay mojisaat boo ci amee juróom bu fukk jàmbar nga moom nag li mu am ci ay mojisaat yoo xam ne bu ci ne doyoon na ab yonent ëpp na junne la wa min alxawaariqi maa lam yi ji li saabiqi mooy loolu wala yefi li laaxiqi fadlan min almuqaddimi li ko yàlla may ci ay kiimaan ay mojisaat mu wone ko ngir wedam loo ñi koy weddi ñi ko jiitu ñëpp mësuñu ko am te keneen du ko amaat te loolu nag fadlan min almuqaddimi nga neel la lu ko yàlla jagleel lu jógee suñu borom bokk na ci yooyu mina salaamul xajari alayhi masyu sajari la woon siqaaqul xamari bisil baqa wal qidami na ci yooyu bare na lool doju newoon màkka bu leen masaa romb dañ koy nuyu ba nit ñi di ko dégg moom ci boppam it seere na ko ne wii de fu ma ko rombe mu nuyu ma am na yit bis boo xam ne dafa am ko doon weddi ndax dégg na ab yonent la mu ne ko waxe kese doyuma da ngay def lu ma jaaxal lu yonent yi daa def ma dooru gëm ne ab yonent nga mu ne ko xanaa boo ma ñod waxee garab gi mu wuy si ma bu ma nga gëm ne ab yonent la ne ko mu ne garab gi ñëwul wuy si ma garab gi jóg ak reen yi ñokket di waaxo ba fekk yonent bi fi mu toog ci wetu waa ji hmm. waaye garab gi yëmu ci waaye day wax ak bi naan ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu daal di waaj daal di dugg ci diina lawoon shaqaaqul qamari bi zil baqa wal qidami moom nga dégg mu naan kaman shaq badrun shahidun sama bil fadli xar gam xaroon weero mo it werante wu ëpp ba mu daal xar weer ñu defee ne ay pexe laag dañ leen a gëlëmal seen i bët ak lu ñu dugg ci waaye mu mu daji réew mi mépp kuñ laaj rek nga ne ko gisee nii nañ ko gisee ñu door nangu kaana yuzilluhu alqamaam yara wara wa amaam wa inhu kaana tanaamu xalbu lam yanami moom fu masaa toog bu ker gi bu dikkee ba ca catul ker ga nit ña toog ca ker ga ker ga day randu fekki ko fa mu toog moom bu dee dox ci naaj it aw niir day dikki ba tool moom di ko niiral ndax bañ jant bi tàngal ko ba loolu ñëpp maase woon nañ xam ko ci moom buy dox it day gis ci gannaaw day gis ci kanam ni doomu aadama yëpp di def nga xam ne fii nga jëm rek ngay gis moom melu ni woon yara wara wa amaam day gisit ci gannaaw wa aynuhu kaanat tanaam waxat bu lam yanami sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masa fàttu ba mel na luy fër bët itam xamal ne bët yaa gëm waaye xol baa ngay gis ma ngay dund ma ngay liggéey la muy liggéey ma ngay gis ca ceew mela bu zubaab an jismihi ma siyaab ka tasilu siyaab billahi mawlil maghnami nee na it weñ ak bokki yëpp nag lépp luy tong ci lu am sobe dañoo misaal weñ rek waaye lépp loo xam day am taq-taq loo xam ne mën naa salte nit wala mu yàq kiim yooyu yëpp dañu dañuy moytu yonent bi duñ ko jege duñ jege ay yéeréem weñ du laal ay yéeréem moo xam yim sol la moo xam yim masa sol ba ko masaa sol rek ba bayi ku ko joxatee sax weñ du ko laal lépp loo xam ne lu xel nanguwut la lu jafe itam mu yombal ko def ko lu ko yombon la gàtt boo xam ne masalan du masa am meew mu jàpp batt bi rek mu tàmbali am meew te du jeexati xeet yooyu yëpp dañoo dafa yu dul jeex mina tawasulu tuyóor bihi lahu staka bahir wan fajaral maa un namir min yeddi si takkaru bi ak njanaaw yi lu mel ni picc yi buñ jaaxlee dikk ci moom ñaan ndimbal masalan tey mu toog ci mu toog ci ak garab moog ñi mu àndal am na picc moo xam ne dafa am ci ñi mu ñu dagg car bi mu ne euh, tàgg mi rot mu jaaxle ci lool dikk di jàmmat yonent bi loolu yéen tamit am na ku ko tooñ ci yéen mm, am ku ko ne man de car bee ma dagg laa moom la ko ndax ah, ah, am na tàgg mu ca ne mu ne ko loolu lay wax del ma delloo ko ca mu dem delloo ko ca picc mi door delluwaat fam ne woon nga xam ne picc mi bi mu jaaxle te yonent bi la def tawassul ci moom la ko dimbali sa gaañ ñi ndax ña ngay ma doom ja mu wax ak ñoom ñu delloo ko bii lahu staka bahir ak tool bu mu dugg rek gileem gi jóg na di jooy di jooy ni nit di jooyee ba yonent bi far kaalaam faral ko rongoñi waaye ko mu door noppi moo xam moom ne ko lu mu doon mu ne ko dañ may liggéeyloo te duñ ma jox ma lekk duñ ma jox ma naan mu laaj borom wax ko ko mu ne ko noonu la demee de maa ko du jox lekk maa ko du jox mu naan waaye tey lay jeex loolu nag na ci borom mbaam yeeg borom fas yi bàyyi xel xëy na yonent bi fi néewul rek waaye ñoom it ñu ngi jàmbat rek dañu amut kuñ ko jàmbat ku yor saw fas wala sa mbaam di ko liggéeyloo ngir di ca mën a dund fexeel ba sàmm àq ja dox sa digg ak moom loolu aw la woo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel wan fajaral ma un nabir min yeddi si takkaru mi bari na loolu lum fu mu këdde nii rek amutoon ndox mu bal ndox ma ñëpp di ca naan waaye xarifu day bi yaa ci gën a yéeme nga xam ne mbooloo mudul jeex nañ amatuñ luñ naan ba ñëpp jaaxle mar wi leen bëgg a rey toog rek baadam yëpp di sotti ndox ñëpp naan ci ba màndi duy seeni guttu gutt yóbbu loolu nag da ko rafaatale sëriñ bi am na ci njaareem bis ñuy nettali ñu jàng gis bu ci wetam ba egsi ci bayit wi fi mu toog noonu suñu taxaw daa toogee rek baaraam yi di sotti ndox mel na robinet ba wala ngaan fi mu toog ba nit ñi di ci naan mu door a yëg ni am na mu door leen a ñu dem kon nag foofu laa yem ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu